baal sànni xeer. booy bi dafa yebaate baal sànni xeer. dafa yebaate xool ko gis nga wone. grève école yi moom la. kii dafa yebaate. a toj. mais. waaw su ne. waaye maa ngi sant yàlla maan bi laa. naka tey. sant lépp jàmm. sa waajaay fii sa taw sa déw fii lan la tey. waaw sunu rax la nu ma indi rek gunge ko yow xam nga jàmm nga nañuy sot. waaw deret moo ñuy yëngal rek. booy bi ngeen am la mën si xeex la mën si bëre. ah loo sot la mën si xeex la mën si bëre. dara loolu jaaxaluñu loo fii la fekk baax booy yi dañoo xeex ba màgg bëre ba màgg moo tax man tiituma si ñoom. dañoo xeex ba màgg. bëre ba màgg. combat bi séntu ko si bo Thiatou Fora samp jaaga di ko demal loosoo. non lu lu loosoo bëgg mën na see dem ak moom man wóolu naa ko. waaw booy la boo xamante ne dafa yàgg a fréquenté affaire dafa dem ba am si don. dañoo gis combat bu mujj di nga dem Alliance Baldé lim si wane. parce que combat bi séntu nañu wane lépp loolu. non dinañ dinañ dinañ si defaat leneen ak leneen parce que xam rek boo bëree ba pare da dañ lay dañ lay tegaat wax la say faay wax la say erreur wax la li nga xam ne moom nga dañ lay gën a yokku daal waaw te yaakaar naa loolu def nañ ko si moom bu baax a baax. daa mel ne cof nga am ah waaw maa ngi sant <laughs> mel ni daa mel ni cof nga avancé. sant si àll ba. ah àll ma si ñaari junni la yow loolu àll ma ñaari loolu waaye loo ma jox la ko. loolu loo bëgg ma jox la ko waaw. ki fi ñëpp bàyyi nga jël. Ah, mais naanaan la moo tax <laughs> xam nga champion champion lay a waa moom day champion moo tax ma sawar si bëri dafa am loo leen ko lebaloon ko lebaloon Iba Mar si kaw tribune ba na loolu la fas yéene fayoo. ah loolu moom mooy loolu loolu man waxi daawaati jéeg moom dootuma si wax man sama kanam rek <laughs> waaw. kon yéen a ko lebaloon. waaw man waxi daawaati la daal loolu. tey jii Pokola bi. waaw ñu ngi waaj bu baax ñu ngi waaj ñu ngi waaj bu baax a baax bàyyiwuñ dara ñu ngi waaj lépp waaw di si woo jàmm gën gi yëpp képp kuy sunu nit rek ñu ngi la si woo waaw waaw seet nañ nga taxaw samp jaaga si diggante Pokola lépp a ci am lépp lépp si ci am man moom damaa mënewul wax ju bari waaye lépp a ci am moom moom nee na nekk moom ala kuli alin kuur gi kuur ak Baye Fall gi waaw bu ma ko fa xaaree man du ma ko xaar de nee na moom noonu day xeex ak du bëre day xeex ak yow waaw baax na bañ yegg ci loolu na laaj ñi xeexoon ak man ñi xeexoon ak man ah. ne laaj maa koy xaar doo ah. ko non awma lu ma koy yóbbante man maa ngi si wara ma war a nekk rek. amul loo ko yóbbante non non. Ah. jaajëf waaw ah, wala boobu.